Gueye jox nag Pam Maxtaar li nga xam ni tànqoon nañ ko segg ko mu boole ci suñu enseignement yi ñu war di jëfandikoo ngeen yóbbaloo ko ci bés bu rëy bii bés bu tedd bii bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم وصية لجميع الإخوان من العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد التجاني الحسني عامله الله بلطفه وفضله في الدارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاعلموا رحمكم الله أن الناس ما خلقوا في هذه الدنيا إلا لعبادة الله تعالى وتوفية أوامره wattinaa bi nawaahi wa anna tawfiyata amrillahi taala walqiyaama bi xuquuqihi min aakadi alwaajibaat wa baad faalamu raximakum ullah anna annaasa maa xuliqu fi hadihi dunya illa li cibaadati llahi taala wa tawfiyati awaamirihi wattinaa bi nawaahi wa anna tawfiyata amri llahi taala walqiyaama bi xuquqi min aakadi alwaajibaat wa acdami altawajjuhaati ila allahi taala qadaa bidalika xukmu almartabati alilahiya walsharaa'ici alnabawiya qaala subhanahu wa taala fi muxkami tanzilih wa ma xalaqtu aljinna walinsa illa liyacbuduun qaala subhaanahu wa taala alam ahad ilaykum ya bani aadam an laa tacbudu shaytaana innahu lakum caduwun mubin wa an ucbuduuni hada siraatun mustaqim wa qaala subhaanahu wa taala inna hadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun wa qaala subhaanahu wa taala aydan fi muxkami tanzilih tilka xududullah wa man yuti illaha wa rasulahu nudxilhu jannatin tajri jannatin tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha wa dalika alfawzu alazim wa man yacsi llaha wa rasulahu wa yatacadda xuduudah nudxilhu naaran xaalidan fiha wa lahu cadaabun muhin ila gayri dalika min al ayaati almutaridati fi lxathi ala hada altalab aakadul ibadat alsalawatu alxams bi shurutiha summa aakadu maa yuxfadu alayhi min amri llahi taala huwa alsalawatu alxams bi jamici axkaamiha wa muqtadayaatiha wa lawaazimiha wa hiya madbuutatun fi kutubi alaimma falwaajibu laha almuxaafadatu ala shurutiha almacluuma wa stikmaalu faraa'idiha almashhuura wa tathqiilu hay'atiha fi alrukuuci wassujuud ala alxaddi alladi dakarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi alxabari alsaxixi bi qawli summa tarkaa xata tatmaina raakica summa tarfaca xata tastawiya qaa'ima summa tasjuda xata tatmaina saajida summa tatmaina saajida wafacal fi baqiyati salaatika haakada walxadara kulla alxadar min alwuquuci fi alhalaaki alladi waqaca fiihi annaasu min adami mubalatihim bi takmili amri salatihim fa innahum yanqurunaha naqra diiki lilxab naqra diikati lilxab wa dalika mubtilun laha bi shahidi qawli qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi lxabari saxiix lirrajuli alladi ra'aahu yafcalu dalik irjic fa salli fa innaka lam tusalli wa huwa yusalli talaata marratin ala alhay'ati allati hiya alisraacu fi lrukuci walsujud wa fi lmarrati alraabica allamahu alkayfiyata alsaabiqa wa qad qaala sallallahu alayhi wa sallam sallu kama raaytumuni usalli fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yutimmu alrukuca walsujuda bittumanina wa xaqiqatu tumaninati fi lchar adamu alitiraabi walsukun wa macnaahu anna alraakica walsaajida ida balaga xadda alrukuci walsujud yataraaxa fihima qadra ma yusabixu allaha taala thalatha tasbixatin bitartili fi tasbixi la aqala min dalik hada aqalu tumanina wa man naqasa min hada alqadri fasada alsalatu fa innaha hiya alqadru allati waqaca fiha alxabar annaha ida sallaha saaxibuha fa bacda faraagihi minha yaaxuduha almalaku fa yalufuha kama yulafu thawbu alxaliq thumma yudrabu biha wajhu saaxibiha walmatlubu fi lcharci an yaatiya alinsanu li salaatihi mithla ityaanihi li nawmi fa inna aatiya annawmi ida galabahu nnawmu yulqaa anhu jamicu ashgaali summa yanaamu munxatan linnawm mutmainan gayra mustaajilin lilfaraag gayra mustaajilin lilfaraagi min annawm wala mutaxafifin lah fa kadalika xaalatu lmusalli maca salaati yaatiha mutahaaqilan fi adaa'iha qad alqaa kulliyatahu ilayha taarikan li kulli ma yashgaluhu anha summa yafaaluha bi shurutiha almadkura wa amma man sallaha mustajilan laa yatma'innu fi rukuuciha wa sujuudiha ala alxaddi alladi dakarnahu fa innaha gayru maqbulatin minh wa ilayha yushiru qawluhu sallallahu alayhi wa sallam awalu ma yanduru fiihi awalu ma yanduru allahu fiih min acmaali alabd alsalaa fa in qubilat minhu yundaru fi saa'iri a'maaliya wa in lam tuqbal min lam yanduri llahu fi cheyin min amali kon mbokk yi ni ko sëriñ bi waxe woon ñi ngi tàmbuli wax ji muy ay leetar yoo xam ne ku dem ci jawahirul maani am na ci fasl boo xam ne ñi ngi ko jagleel laaj yi nga xam ne daanañ ko laaj Cheikh na Tijaani radiallahu anhu mu aju ci yenn ayat quraaniya yi nga xam ne dégg gi yombul du ayat muhkamat dégg arab taxul nga xam ko wala yenn waxi sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nit ku nekk ni nga toll noonu ngay waxe yàlla ni mu toll waxam noonu lay toll sayduna muhammad qadroom ak miqdaaroom di baatinam ak zahiram ni mu toll ci yàlla waxam itam noonu lay toll la ca lënt dégg cheikh na tijaani sharif radiallahu mi nga xam ne bidayatuhu lil awliyaai nihayatun nihayatuhu maariixuha qattu summati ñu ko koy laaj mu cay tontu ak leetar yi nga xam ne di ay bataaxal daf ko daan bind di ca leeralal njaboot gi di ko jëme ila fuqaraa faas wa ma xawlaha ci taalibe yi li war seen diggante ak seen boroom ak li leen takkaleeg moom dégager responsabilité ba bu ëllëgee ca kanamu yàlla yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim fekk kenn du am lay ci kanamam waaw ndax tariqa bi itam dafa am ay charte charte yooya am na lu ci Cheikh na Tidiane yi tudd ci biir leetar bi nga xam ne moo ko adressé woon waa Fass kon ñu tàmbali ci moom ci woyofam ak ci wàccam cër yépp daf ko jël delloo ko yàlla nee na lii ndénkaade la boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci jaam bu aajowoo yërmande yàlla jaam booba mooy kan mooy ahmad di ibnu muhammad di attijaani alxasani ndax maamam mooy sallallahu alayhi wa sallama ka ko ca boole nag mooy sayiduna alxasan wa tax ñuy wax alsharifu alfatimi alxasani di ñaan yàlla mu jëflanteek moom ci ñewantam ak ngëneelam ci àdduna ak laaxira sidina cheikh nee na radiallahu anhu yéen njaboot gi nangeen xam yal na leen yàlla yërëm gis nga ci mbaaxam waaw la mam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu waxoon ne man malik gisuma fi diina ju yaakaaroo xanaa yërmande yàlla moo tax sidina cheikh ne maa ngi leen di ñaan ñaanal yàlla bala may wax li may wax yërmande yàlla yàlla na jiitu peeg ñu ñun ñëpp sidina cheikh wax ne anna sa nekki nit ñi maa binduñu leen fi hadihi dunyaa ci àdduna bi lu dul benn mbir ñu ne ko loolu mooy lan mu ne mooy ju jaamu yàlla te matal ay ndigalam sori ay tereem loolu rekk mooy alhadaf mooy raaya bi nga xam ne moo tax yàlla binduñu matal ndigali yàlla yooyu nag ak taxawe ay xaqam dafa bokk ci devoir yi gën a feddli ko yi gën a mag bokk itam ci jublu yi nga xam ni nit ki mënul jublu ci yàlla àgg ci moom am li mu bëgg te matalul ponk yooyu nee na lii muy bëgg a wax moom sidina cheikh radiallahu anhu boo demee ci mboolem shara'i yi nga xam ne yàlla joxoon na ko ay yonent ñu indi ko ci jaam ñi pour xett li leen danga ko ca fekk boo dikkee ci sunu téere bii nga xam ne mooy alquran di axiru kitab axiru tashri bu bàyyi koo ca yàlla yàlla mi ngi wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun waaw fa inna allaha subhanahu wa taala asnada al ila nafsi yàlla nee na bind bàyyi leen ko ak man wéet naa ci darni wa man xalaqtu waxiida afa man yaxluq kaman laa yaxluq yàlla nee na kii bind ak ki manta bind mënuñoo bokk yam laajul dafay def iqraar ci ne ki mën bind am kattan ak ki nga xam ne mënta bind mënuñoo bokk wàccuwaay yàlla nee na comme que man maa bind nag te nag bindu ma ngir fo aw ma jotam wa maa xalaq na samaa wal arda wa maa baynahuma laaibin afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan kon dafa am lu tax ma bind leen ñu ne ko loolu mooy lan mu ne li tax ma bind nit ak jinne mooy nañ ma jaamu nañ ma wéetal nañ ma topp nañu dox ci sama waaw mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun yàlla waxaat ne yéen doomu aadama am na pacte bu ma signé woon ak yéen te moo di ne na ngeen daw seytaane bañ a topp ci ginnaawam bu leen ko jaamu bu leen dégglu ay ndigalam te na ngeen daw ay tereem ndax seen noon la alam ahad ilaykum ya bani adam an laa taabudu sheytaan innahu lakum aduwu mubin la mu séq ak seen maam aadama ba la ca xew xew ca ba ma wàccee leen fii ci biir suuf ci kaw suuf war ngeen fu ngeen toll di ko fàttaliku kon seen noon la bëggul ngeen am ndam li ma joxe nag ci ndigal mooy wa an ubuduni na nangeen ànd yéen ñépp xam ne chaise bi ci waxin ngir dégg mana yomb bu doon chaise bu ñuy toog yàlla nee na toog naa ci ferankulaayu naa ci fees naa ko del keneen ku dul man ci suuf ngay toog bokkuma kenn togguma kenn loolu ci misaal waaye ëpp yàlla ëppante naag loolu wa an ubuduni na ngeen ma jaamu na ngeen ma wéetal na ngeen ma topp hada siratu mustaqim loolu mooy yoon wu jub wi nga xam ne moo coow ku ko topp te wàcculoo ko bu ëllëgee ku gis yàlla danga ko gis ku gisul yàlla danga ko gis yàlla waxaat ci alquran ne inna hadihi ummatukum ummatan waahida xeet wi benn rek la wa ana rabbukum faabudun te wéet naa ci ne man may seen boroom na ngeen ma jaamu boo demee ci téere yi jàngale tasawuf dañuy wax ne baatu ar ci lugal arabiya buñ ko bàyyee muy nakira muy rabb li ci ëpp yàlla lañ koy askane mënoo wax ne fulaanun rabbun diw yàlla la déedéet mën nga ko jël nag laaf ko ci dara ñu askane ko yàlla yenn saa yi ñu askane ko keneen ku dul yàlla man ngaa wax ne fulaanun rabbu haadihi addaar nit ki moo moom kër gi wala nga ne yàlla mooy rabbu haadihi al ard waaye bu ci alif ak laam xasee ba dugg muy baatu ar rab laa yutlaqu illa ala allahi waxdahu muy baat bu doy war ci wàllu langu arab moo tax yàlla jël ko taf ko ci boppam ne wa ana rabbukum faabuduun man may seen borom nangeen ma jaamu na ngeen ma wéetal yàlla waxaat itam ne tilka xududullah limite yaa ngi noonu frontière yaa ngi noonu rëdd naa ko ba noppi bu leen ko dépassé message bi may lancé man seen borom ba addunay tukki du fi jóg mooy ko topp yàlla ak bi yonentam bu ëllëgee danaa la fayee dugal la ci këru àjjana teral la àjjana joo xam ne la fay daw ay dex la fa ngeen di sax ba faw te ku fa àgg da nga xam ne loolu mooy taxe képp koo xam ne mooy nga yàlla mooy ay ndig kanamu yàlla du ñu am benn jafe-jafe sidina cheikh ne summa akadu ma maa yuxfadu alayhi aw maa yuxaafadu alayhi min amrillahi taala huwa salawaatul xams sidina cheikh nee na sama tariqa bii moom sama maam jox fenti ma ci lu fentuma ci lu bees dafa ñëw pour ñàkk sharia tariqa bala muy taxaw il faut que sharia taxaw ndax mooy ndey ji ci lañ ko balluloo mu ne jaamu yàlla yi ndigali yàlla yi bi ci gën a màgg ma bëgg sama jaboot bàyyi ko xel jullit yépp bàyyi ko xel ba bu ëllëgee buñ teeree ci kanamu yàlla du ñu am benn jafeñ-jafeñ nee na ba ca gën a màgg ginnaaw bu jaam bi seedee ne yàlla kenn la an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah waaw muy an nutq bi shahadatayn jaamu yàlla bi gën a màgg cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu nee na mooy julli juróom nga xam attaye bi jamii ahkaamiha nga jàng ko xam ko soo ko xamul nga laaj ko ñi xam fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun la ca aju ci ay muqtadayaat la ca aju ca war te boo demee ci téere yi fiq yi sunu kilifa yu baax yi yaxal ko fa jële ko ci sallallahu alayhi wa sallama te dana ko leeral ci kanam nee na na ko njaboot gi bàyyi xel fal waajibu laha almuhaafadatu ala shurutiha almaaluuma nee na julli nag pour mu mën a baax il faut nga sàmmonteeg charte yi nga xam ne boo demee ci téere yi fiq yi da ko jàng danga ko xam te charte ñiy jàngale ilmul usul dañuy wax ne achartu ma yalzamu min adamihi al adam wa ma yal wa ma laa yalzamu min wujudihi wujudun wala adam loolu mooy charte waaw ñiy jàngale usul di jàngale charte wa sabab wal maani wa saxiix wal fasid wal baatil ak ruxsa ak azima noonu la ñuy taarife charte charte mooy loo xam ne maa maa yalzamu min adamihi adam loo xam ne bii su amul la ca war a topp du am moo loo xam ne bii itam ak amam du tax la ci war a topp am akuk ñàkkam dana ko leeral ci kanam lu mel ne par exemple njàpp njàpp soo jàppul mënoo julli waaye nit ki mën naa jàpp ba noppi du julli te fekk waxtu wi jotagul te naafilawul te du ci am bàkkaar kon loolu mooy charte sidina cheikh nee na charte yooya nga xam ne bu amul julli du mën a am taalibe bi war na koo xam faraid yi nga xam ne itam moo nekk ci téere yi ñu ne lii mooy faratay julli te farata mooy loo xam ne bi soo ko defee ñu yool la bindal la loo xam ne bi soo ko bàyyee yàlla teg la ay daan loolu mooy farata loo xam ne soo ko defee ñu yool la bindal la tiyaabo soo ko bàyyee yàlla teg ci sa kaw ay daan loolu mooy farat mu ne kon julli am na ay farata yoo xam ne soo ko indiwul julli gi du baax loolu nee na kon taalibe bi war na ko xam am na itam loo xam ne nee na bëgg na njaboot gi bàyyi ko xel mooy julli ci biir farata yooyu nga xam ne rukkoo ci la bokk sujjóot ci la bokk sidina cheikh nee na am na ñoo xam ne seen julli fonk ñu farata ya rukkoo ba du mat sujjóot ba du mat nañ ko war a diisale temps bañ fa war a def xeetu sabbal yañ war a def la ca war ci ictidaal ak tumaniina sidina cheikh nee na duñ ko matal ba tax na mu bëgg koo tudd ndax njaboot gi bàyyi ko xel pour boo ëllëgee ci kanamu yàlla mu dégager responsabilité am dafa am benn xadiis boo xam ne jële nañ ko ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne sànq bu tedd bi dafa toog ci biir jàkka ji benn waay ñëw fa daxala rajulun fa salla sang baa ngi toog benn waaye na jamet ci biir jàkk ji julli ba àggal ñëw fekk sang bi fi mu toog mu ne ko jàpp ñaari loxo nuyu ko fa sallama ala nabii sallallahu alayhi wa sallama bi fay ko nuyoo ba noppi ne ko irji fa salli fa innaka lam tusalli bi ngay julli maa ngi lay bàyyi xel ni nga duggee ci julli gi sa kàbbaru armal sa taxawaayu jàng faatixa ak saar wi ci teg sa rukkoo sa yëkkatiku ci rukkoo bi ba bi ngay dem ci sujjóot ni nga sujjóotee ba bi ngay toog ni ngay delluwaate bàyyi naa ko xel ba nga ne assalaamu aleykum dara matu ci kon julliwuloo waa ji julliwaat sang bi ne ko irji fa salli fa innaka lam tusalli julliwaatal julliwuloo waa ji def ko ba muy ñett yoon mu ñëw ci sang bi ne ko walladi baasaka xaq maa uxsinu gayrahu fa allim nii man de def naa li ma man nii laa mën a julle yow mi yàlla yónni yónni la ci dëgg yónni la pour nga jàngale lu jaarul ci yow du diine jàngal ma nu ñuy julle sang bu tedd bi na ko sallallahu alayhi wa sallam déglu leen bu baax baax ida qumta ila boo demee ba jóg war a taxaw jëm ci julli nga xam ne la ca war yépp def nga ko ba allahu akbar des ci nga taxaw nee na ko fa kabbir na nga ne allahu akbar muy kàbbaru armal di farata taxaw bi ngay taxaw di ko def di farata fi ngay waxe allahu akbar diggante ë gi ci allahu ak ru gi ci akbaru fi ngay yéene julli doo yéene door a wax allahu akbar doo wax allahu akbar ba noppi door a yéene yéene farata la waaye lëkkale ko ak kabaru armal itam dafa bokk ci farata yi mu ne ko ida qumta ila salaati fa kabbir boo demee ba war a taxawal julli na nga ne allahu akbar beneen baat boo fi wax bu dul allahu akbar du doy boo ne woon allahu ajal allahu azam allahu az donte kalimaat yooyu am na taraaduf ak allahu akbar kenn du ko nangu baatu allahu akbar kot moo lay mën a dugal ci biir julli mu ne ko soo kàbbaree summa qra maa tayassara maaka min alquran nga jàng fatiha jàng la nga mokkal ci alquran teewlu ko fatiha ba bañ ko yàkkamti su paree nga teg ci aw saar wala nga teg ci ay ayat donte benn aaya la baax na soo paree summa rka nga rukkoo xatta tatma inna raakian ba nga yëg ne rukkoo nga dana ci gën a ñëw ci kanam su masjud boo rukkoo ba xam ne rukkoo nga su marfa topp nga yëkkatiku ca rukkoo ba xatta taatadila qaaiman ba nga yëg ne taxaw nga sa cër yépp delluwaat na fa mu jóge woon rukkoo nga yëkkatiku nga ci rukkoo bi ba taxaw ni nga war a taxawe sang bi ne ko su jut boo demee di sujjooti itam juróom-ñaari cër yi sang bi wax ne kuy sujjoot moom nga war a sujjoote sa jë ci suuf sa ñaari loxo yi ci suuf bakkan bi na laal suuf ñaari oom yi na laal suuf cati baaraam yi itam na laal suuf su ko defee summa rfa nga yëkkatiku ci sujjoot bi toog xatta tatma inna jaalisan nga toog ba yëg ne toog nga bul sujjóot ne nii rek daldi di siggi ne nii rek dem sujjóotiwaat sujjóotal ba yëg ne sujjóot nga nga yëkkatiku ci sujjóot bi toog ba yëg ne itam toog nga nga door a sujjóotaat door a jóg ne ko soo ko defee ba julli gi mat na la wóor ne fa ida faalta hada faqad tammat salaatuk soo ko defee nii ba mu àgg sang bi ne ko sa julli mat na sallallahu alayhi wa sallam ne kon Cheikh na Tidiane Chérif ne radiyallahu anhu maa ngi leen di moytandikuloo yéen sama njaboot ak bépp jullit ngeen tabbi ci alkane gi nga xam ne ñu bari tabbi nañ ci te la ko waral mooy ñàkk faale gu ñuy faale julli ba la ca war duñ ko matal Cheikh na Tidiane Chérif ne sama maam nee na am na ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy mel ni ginaar guy cof dugub cuub coppet cof siggiwaat rukkoo bi du mat yëkkati ko ko baaxul sujjóot ba baaxul te nee na loolu ku ko def sa julli dafa yàqu ni séq guy cof dugub mawlaaka yow ragalal ngir julli foot ne tërëy indal ali bu ko def ni seq guy cof dugub mawlaa ka ragalal royal ci sab ilimaan te bañ ko jiitu axi toppal ci moom lu mu def yewit nga def lu ni mel fonkal rukuya te tasbihaat yépp namat kada sujud ya ma al yow ma talal xam leen ni jullil lu rëy la inda malikina mboolem ibaadaat yi julleey bopp bi dog gi gënul xam ngeen ni bopp su dogee ab dundu dootu fa am foofu leen ko ci des yal nañ ci yàlla musal Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick nee soo kabbaree nga ni tëkk ànd ak di fuglu bu baax ngir xam ni yaa ngi déeyoog buur bu dara rawul ma a tadabburi wal xushuuci soo ko defee daam ridaa rabbina yaa xillu duuna jadal innal musalli yunaaji rabbo ci lu wér fonk sellal ko yaa xibbi te bañ di tayal di leen ko jóoka ci waxtoom fépp fu ngeen mën ne te boole ko laab bañ koo yéexe ngir sofetal xasida boobu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz moo ko taalif 1981 fa tabarakallahu waxi wolof la ñëpp dégg nañ ko leer na nañ lii kilifa gi wax sallallahu alayhi wa wax moom la wax ci tax mu ne bu leen ko cof ni dugub di cofe pepp ndax nee na loolu dafay yàq julli te la cay tegtal mooy sayduna muhammad li mu waxoon waa jooju ñëwoon di julli gaawtoo ko mu ne ko irji' fa fa innaka lam tusalli yonent bi bi mu ko jàngalee ne ko sooy julli ci misaal ma taxaw tuuti rek sooy julli ci misaal kàbbaru armal ngay dugge ci julli gi nga yëkkati sa ñaari loxo téere yi nee na mën nga koo yëkkati ba mu tollook sa ñaari nopp wala même boo ko wàccee ba mu tollook sa mbagg terewu koo baax nga ne allahu akbar muy kàbbaru armal wax naa leen farata la moom baatu allahu akbar muy kàbbaru armal boo toppee ci ginnaaw ilimaan bul gaawtu boo ne allahu akbar te sa ilimaan waxagu ko wala mu naan allahu akbar nga ànd ak moom ne allahu akbar sa julli baaxul ilimaan dañoo wax ne kenn du juddoondoo ak moom kenn du ko jëkk juddu dangay ngay bàyyi ba mu juddu ba noppi foofu ngay kàbbare nga jàng fatiha soo jàngee fatiha bañ koo yàkkamti jàng aw saar sallallahu alayhi wa sallam nee na boo demee di rukkoo rukkoo bi pour mu mat dangay ngay sëgg da sëgg waxuñu nga sëgg-sëgg bu ëpp waxuñu itam nga ne nii xanaa nga feebar bu fekkee da nga am ngant sharia jéggal na la waaye bu la dara jotul da ngay wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba sa ginnaaw maase ba nga xam ne ku ci sotti woon ndox ndox mu buy tuuru wàll yépp lay tuuroo ndox ndox mu maase nga jël sa loxo yi téye sa ñaari bëti oom nii bul julli itam di xool di def nii bul julli itam di xool di def nii bul julli itam yëkkati say bët sa jëb bi fa muy sujjooti sang bu tedd bi nee na xoolal foofu waaw sang bi nee nga téye sa ñaari loxo fii ab diir diir bi mooy lu toll ne li ngay wax ne subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi bi tartiili bu fekkee da nga koy def tartiil yàkkamti woo cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu nee na sabal yi gën jaa néew na nga ko def ñetti yoon subhaana rabbiya alazimi wa bihamdihi subhaana rabbiya alazimi wa bihamdihi subhaana bi alazimi wa bihamdihi muy ñetti yoon nee na gën jaa néew boo toppee ci ilimaan joo xam ne du ko wax ñetti yoon biir tartiil cheikh na tijaani nee na demal nga wuti beneen ilimaan bul junni ci ginnaaw bu ko defee nee na nga yëkkatiku booy yëkkatiku nii ngay yëkkatikoo yëkkatiku yëkkatiku ba taxaw xatta tatma inna qaiman nga taxaw su ilimaan ne rabbana walaka alhamd nga ne xamdan kathiran tayiban mubarakan fii fekk sa lépp dellu na yax yi lépp waaye ne nii rek sami allahu liman xamida bala ñuy kii nga dem ne allahu akbar ëpp naa def bàyyi nga farata waaw ndax ruko farata la war rafu min arrukuui xatta tatma inna qaaiman kooku itam farata la loolu la Cheikh na Tidiane yi jàngale jële ko ci maamam sallallahu alayhi wa sallam moo tax sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko jàngalee waa ji ba noppi ci la waxoon ne na ngeen julli ni ngeen ma gisee may julli te sang bi ni mu daan jullee mooy ni ñu wax léegi kaana yutimu rukuuca wa sujuuda bi ci daaw ko gaawtoo njàng mi mën na gaaw du la wàññi dara ndax xam na ñoo xam ne seen làmmiñ dafa bar waaw ndax jàng bi ngay jàng alquran ginnaaw fatiha saar wi su la du farata soo ko bàyyee mën nga ko réparer mais farata il faut nga indi ko soo ko indiwul julli gi du baax te rukkoo bi farata la am na ñoo xam ne seen njàng dafay ga dafay yéex lool waaye rukkoo bi daanaka benn tasbix duñ ko def moo tax maam Cheikh El Hadj Malick ne li xal fa man laa yaati qadra thalathi muddatal xayaati bépp imam booy topp ci ginnaawam muy yàkkamti julleem du indi ñetti tasbihaat maam Cheikh Alhaaj Malik nee na bul julleeti ci ginnaawam ma ngi ci faakihatu tulaab nee na wa xaqiqatu tumaninati fi shara te tumanina dëgg-dëgg te dafa bokk ci farata yi borom ibnu ashir wax na ko faraidu salaati sitta achara shurutuha arbaatun muftaqara takbiratul ihrami wal qiyaamu laha waniyatun biha turaamu fatihatun maa alqiyaami wa ruku wa rafu minhu wal wa wal xudu la ko toppe ba agsi ci ictidaal ak tumanina ñu ne ko waaw sidina cheikh lan mooy tumanina mu ne ak tumaninatu mooy boo demee ba war a nga bañ a nekk di jaayu waaw rukkoo ba noppi naan nii rukkoo ba noppi naan nii waaw sa poche waaw portable buy sone ngay yëkkati jël mouchoir di fomp jàpp ci bouton yi di defaraat jàpp ci sa sikkim di fokk yonent bi dafa gis benn waaye buy julli donte xadis bi am nañu ciy wax dara sax waaye boroom xam-xam yépp indi nañ ko jàpp ci sikkim bi waaw ñii jàpp ci portable yi ak léegi li xew ci jamono fa tabarakallah julli jàkkaarloog télévision julli bàyyi sa portable muy sone waaw julliwuloo waaw wax naa ko ay mbokk man na leen am na ñoo xam ne football rek la ñu bëgg waaw mën nañoo jàkkaarloog seen équipe muy football bu Messi yoree bal bu bëggee dóor fekk ñu ngi ci julli gi mën nañoo ànd ak moom dóor te fekk ñu ngi julli waaw bu fekkente ne yow làmb rek nga bëgg bu Yékini bëggee dóor nga ngay xool mën naa am sax buñ ko doon dóor kurpañ yow mi ci julli gi yaay moytandiku kon teewluwu la moo tax ak tuma nii natu dëgg-dëgg moo di adamul ittirab nga bañ a baj-baj ànd ak dal sa yaram dal sa lépp dal was sukuunu nga ànd ak dal ku ma sëkk wa maanaahu liñ ci jublu dëgg-dëgg na mooy kii rukkoo ak kii sujjoot bu demee ba rukkoo wala mu sujjoot lu bon bon na fa sax diir boo xam ne dana fa sabbal yàlla ñetti sabbal bi tar tartiil soo ko deful tartiil nga xam ne da nga koo yàkkamti subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi subhaana rabbiyal lu bon bon mën naa dem ba juróom wala ba juróom-ñaar waaye bu tartiil bi amee cheikh na tijaani shérif nee na ñett doy na hada aqallu tumanina nee na loolu ci tariqa bi ci ngiru imam malik mooy li gën a néew ci nii na donte am na ñu wax leneen nee na sit na cheikh ne képp koo xam ne lii mataloo ko sa julli yàqu na soo jullee ba noppi teewluwuloo ko rukoo yi matul sujoot yi matul tasbihaat yi matul nee na soo jullee ba noppi malaakam yi dafay ñëw jël julli gi daf koy lëmës ni ngay jële sa coupé wala sa téere lëmas ko ci dara muy yére yu ràpp nga laxas ko lëmas ko sànni ko soo paree julli gi cheikh na tijaani shérif nee na radiyallahu anhu noonu lay malaaka mi ñëwee jël ko sànniwaat la ko te am na xadis bu ci ñëw soo ko soo jullee njàpp ma matul toroxlu gi matul rukkoo ya matul sujjóot ga matul sang bu tedd bi nee na julli gi daf naan ni nga ma patam patamee ni nga ma yàkkamtee sànq ma yàlla la yàlla sànke noonu dayaata allahu kama dayaata nii kon nag loolu jar naa bàyyi xel cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu sëñ abdul aziz mi ngi ñuy wax nee na ñu bàyyi xel ni li ñu bëgg ci kiy julli mooy mu mel ni kuy nelaw ab du mbay xam nga kuy nelaw du yàkkamti boo xasee ba nelaw lépp wàcc na la waaw julli wàcc na la ba keroog nga yeew allahuma lu dul nga topp sa bakkan bëgg nelaw nag ba mu ëpp waaye bu dee nelaw yu normal rek teggil nañ la xalima gi waaw dépense wàcc na la ba keroog nga yeew facture courant wàcc na la ba keroog nga yeew facture ndox wàcc na dañ lay dañ lay bàyyi nga nelaw aisément ndax boo yeewoo nga amaat cawarte mën a jànkonte waat ak àdduna Cheikh na Tidiane Chérif nee na ni ñuy bàyyee kii nelaw mu def ko ni ko bëggee kenn du ko déranger kenn du ko yee kenn du ko fitnaal ba keroog muy yeewu yi ko waroon waraat ko Cheikh na Tidiane Chérif nee na kii julli na def noonu boo xasee ba dugg ci julli na bàyyi lépp dara waratu ko dépense waratu ko kër waratu ko ndax mi ngi jubloo boroomam na ko def jël léppam jébbal ko yàlla ndax allahu akbar boo ko xasee ba wax mooy bay Abdou daana wax ne bi nga ne allahu akbar da nga ne yow yàlla sa kabaru armal bi ngay yëkkatee sa ñaari loxo dafa mel ne yaa ngi doon bëgg lab ci géej nga ne ko yow yàlla maa ngi yëkkati samay loxo ngir nga xett li ma kon bàyyil àdduna ak li ci biiram taarikan li kulli ma yashghaluhu anha lépp lu lay soxlaal àdduna wax nañ ko sànq bu dee portable nga fay bu dee télévision nga fay jublu ak sa borom bàyyi lépp loo xam ne dafay dox ci diggante ak sa borom képp koo xam ne da nga ko julli nag ci kaw yàkkamti laa yatma innu fi rukuuiha wala sujudiha itami inaan amul tuma nii na amul ci bi ngay rukkoo ak bi ngay sujjoot patam patamee ko nee na julli gi kenn du ko nangu te li tax mu jara bàyyi xel mooy awwalu ma yanduru llahu fiihi min amali al abd ëllëg li yàlla di njëkk a xool ci jëfi jaam bi moo di julli suñ ko nangoo yàlla daanaka mën naa bañ a xool yeneen jëf yi ci des su fekkente ne bii julli xool nañ ko baaxul li ci des yëpp yàlla dootu ko xool kon Cheikh na Tidiane Cherif wax na ci julli ñu ne ko waaw sang bi ndax nit ki buy julli dafay jékki-jékki rek ñëw ne allahu akbar su ko neexee du jàpp te amul benn ngant ndax loolu mën naa nekk Cheikh na Tidiane ne pour julli mën a baax il faut que nit ki laab ci li ñuy tudde alxadas laab ci lu laab ci lu ñuy tudde alxabas làpp ci lu ñuy tudde alxadas loolu itam mbokk yi jar na bàyyi xel waaw bari na koo xam ne dafay dugg ci wanag du ci bàyyi xel tuur ndox ci wax ji muy waxi wolof waaye pour baat bi gën a leer mooy mu saw su paree du am jotu ferlu dangay gis koo xam ne day toog ba ñu nodd ba noddaat bay waaj a liqaam mu yore as mbutéel su ndaw dugg ci wanag wi gaanuwaay ba noppi siw jàpp ci ndox mu tuuti mooma te ñëw te imaam du ko raw kon kooku matalul làpp dañoo bëgg boo duggee ci wanag boo tuuree ndox wala nga tuur ñam rawate na nga tuur ndox te mooy gaanuwaay soo ko defee ba noppi dañu bëgg nga toog ab diir bu dee góor sa loxo ndeyjoor sa loxo càmmoñ bii nga xam ne mooy dem ci sa awra téere yi nee na balaa mu ciy dem comme que saw dafa niin ndox mi na jiitu ci sa loxo yi ba mu tooy xip nga door a téye sa awra commencé ca suuf di xëcc ndànk di ko ratt ndànk te bañ koo dëgëral soo mënee jóg nga jógaat ndax li desoon ci poftan mi ci gaanuwaay bi mën a jóg boo toogee mu jóg di génn ndànk-ndànk am na ci téeram yoo xam ne sax nee na soo mënee xaddamiku wala nga noyyiwaat nga def ko lépp rek ngir bëgg li desoon ci saw mi gaanuwaay bi mën a jeex takk bala ngay ferlu bala ngay siw nee nañ bu dee jigéen ferlu war na ko na jël loxo ndey jooram baaraam yi lay jël def ko ci naqam moom ku jigéen ci di ko bës ndànk di ko bës ndànk di ko bës ndànk ba gaanuwaay bi yépp jeex mu door a siw kon jigéen dana ferlu waaw baaraamam yii lay jël loxo càmmoñam ceti baaraam yi lay jël teg ko ci naqam moom ndaw si bu gaanuwaayee ba noppi di ko bës ndànk di bës ndànk bu ko defee gaanuwaay bi li desoon di génn ndànk ci kanamam di génn ndànk ci kanamam ba mu yëg ne dara wàccatul mu door a jor ndox door a siw kon Cheikh na Tidiane Chérif nee na pour julli mën a baax il faut nga laab ci xabas laab bu xabas mooy sobe si nga taq waaw muy gaanuwaay wala dugub ji nga tuur muy dem àll ba loola boo ko tuuree ba noppi ba set ca wicc nga jël ndox siw jël ndox raxas sa kanam fi ñam bi doon génne laab nga ci xabas muy sobe si laab nga ci waaye laa bëggoo ci xadas pour nga laab ci xadas il faut nga jàpp kon laa bu xabas ak laabu xadas ndeke bokkul nit ki mën naa laab ci xabas te laabul ci xadas boo tuuree ndox ba noppi siw ferlu siw wala nga tuur dugub ba noppi jëfandikoo ndox ci sa suuf ba mu set wicc laab nga ci xabas waaye taxul nga mën a julli pour nga mën a julli il faut nga laab ci xadas te mooy nga jàpp moo tax Cheikh na Tidiane Chérif ne taalube bi jaam bi war naa jàng laab la ca aju ci raxas cër yi ba mu mat li nga war a raxas ci biir li nga war a raxas ci biti fooy tàmbulee ban loxo ngay ban ban cër ngay njëkke bu dee sangu set itam niñ koy defe ba keroog ngay xobbeeku ak fi ngay yéene ne yaa ngi yëkkati janaaba bi ngay raxas sa xar kanam ak fa tabarakallahu njàpp njàpp benn benn ba mu àgg nga xaaj sa yaram ñaari xaaj raxas wàll gi féete ndeyjoor wàll gi féete càmmoñ ci gàttal si sidina cheikh nee na loolu njaboot gu nekk war na koo bàyyi xel yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila salaati ba ba jeex wa in kuntum junuban fattaharu loolu la yàlla santaane waaye yore janaba ñu wax ñu wax nga ne man am naa ñaan goo xam ne su ma ko ñaanee ma mën naa ànd ak sama soxna ba noppi takk ba ba noppi ñaan ak ñaan man a julli te sanguwuloo amul fen wa in kuntum junuban la yàlla wax fattaharu na ngeen sangu na ngeen làpp ku ci amati janaba bala ngay jaamu yàlla na nga làpp muy sangu set ñu bàyyi ko xel te am na ñoo xam ne mënuñu ko waaw am na jigéen ñoo xam ne dañuy dem ba seen jëkkër génn àdduna ñuy tënj ci lañ leen di door a jàngal naka la ñuy jàppe ak naka la ñuy sangoo set am na ci jigéen ñoo xam ne sëy nañu ba am ay doom ju gis seeni doom ay yoonu yoon te boo leen laajoon ni ñuy sango seet nee nañ xamuñu ko loolu moo tax si dina Cheikh di ci insister pour njaboot gi xam ko ñu jàngal ko njaboot gi bu baax a baax am na ci âge boo xam ne bu ci xale bi tolloo rek war ngaa waxtaan ak moom ndax mën ngaa sangu set mën ngaa jàpp nga jàngal ko sa soxna fa tabarakallah ndax Sidna Cheikh nee na li ëpp ci nit ñi dañuy foye dañuy foy njàpp noonu leen neex lañ koy defe duñ ko matal te nee na soo ko matalu soo jullee sa julli baaxul waaw fa inna man fasadat taharatuhu fasadat salatuhu ku amul làpp doo mën a julli waaw te sa te salaay salaam daana wax ne na ngeen di ferlu tanazzahu min al bawli fa inna amata adabil qabri minhu nee na bari na ku dugg bàmmeel ñu lay mbugal te lu tax ñu lay mbugal mooy ba nga nekkee ci àdduna soo masaana gaanuwaay doo ferlu sénégalais yi nag seen nattu bëgg nañu yàlla lool mais dañoo yàkkamti ngay gis ko dugg ci wanag romb la taf-taf daal di gaaw génnaat mu wóor la ne ne yow mën ngaa jàpp julli boo delluwaatoon ca kër ga tekki sa tubay xool sa awra dangay gis ne saw maa ngi toq kon julli wuloo yonent bi romb na ñaari bàmmeel sa sallam ca toolu Madina ya mu ne ñaar ñi tëdd ci seen biir bàmmeel yuadabaani wa maa yuadabaani fii kabir ñi ngi leen di mbugal ci seen biir bàmmeel loolu yonent bi rekk ko mën a xam xanaa ak ak ku mu jox sirru ba ñu ne ko lu tax ak la la mu def dagg ay car def ca bopp ba ndax yàlla woyofal duma yëf féeg wowuñu ñu ne ko kenn ki lu mu daan def mu ne su ma saana saw daawul ferlu ahaduhuma kaana la yastansihu min al taxaw ci bii de di saw saw muy tas di tis di ñëwaat ci sa ay yére te soo paree moom ngay julliwaate jar na wala nga jublu nii waaye bul jub bul def nii bu ko wan ginnaaw na nga sutur lawu itam foo xam ne kenn du la gis waaw fa tabarakallahu bu loolu pare wax na ko sooy génn nga jiital sa tànku ndeyjoor boo tuuree dugg ba noppi boo génnee nga ne nag wala nga ne alhamdulillahi alladi adhaba an al adha wa afani ndax boo tëju woon bëgg a tuur ndox te mënoo ko il faut que docteur am ci yoon boo seere woon ay fan bëgg a dem àll te mënuloo ko léegi tey fitna tàbbi moo tax mbokk yi sant yàlla war na bari na lu nit di xeeb te fekk na am na ñoo xam ne bu ñu tuuree ndox il faut que docteur am ci yoon defal leen sondage am na ñoo xam ne bala ñuy tuur ñam il faut que docteur am ci yoon yàlla baaxee la nga lekk mu rees dugg ci wanag tuur ndox sutura sa sutura xaweekuwul nga tuur ñam sa sutura xaweekuwul nga génn féex alhamdulilahi moo ca war a tegu léegi nag sidina cheikh ne kon julli farata la waaye nee na dafa am loo xam ne itam ci tariqaam dafa bokk ci min akadi shuruuti te moo di almuhaafadatu ala salaatil jamaa sidina cheikh nee na sama taalube bëgg naa bu amul benn ngant bu ko sharia may nay dem ca mbooloo ma di fa julle te bañ di beru di julli moom rek soo ko dee def itam lu bon bon fatiha jullit bu nekk war nga koo mokkal war nga koo mën a tari te doo ko xool war nga ko mën a jàng njàng mu wér moo tax mu ne wa usikum bil muhafadati ala adawat ala adai salawati alxams fi ljamaa fii ak ilimaan bi ngay topp ci ginnaawam mi ngi matal rukoo ya di matal sujoot ya sidina cheikh nee na bul julli yow rek demal ca mbooloo ma nga julli ci wa illa bu fekkente ne bi imaam bi ngay topp dafay patam pate may julli gi waaw gis nga léegi nit ñuy def am na ci film yoo xam ne bu ñu koy dawal dañuy bàyyi ba 7 ba ñuy waaj a julli timis boo nekkee ilimaan bu sàggan mel ni man wala nga nekk sax jullikat bu sàggan mel ni man buy dem jàkka ja bu ilimaan naan assalaamu aleykum baaqiyaatu saalihaat sax du ko fekk ndax ma nga bëgg a seetaani marimaar ak film yu mel noonu mag ñi sax dañ ciy topp xale yi jigéen ñi film yëpp lañ mokkal donte dégguñu tubaab mu nekkoon bu fekkente ne ilimaan bi daf koy patam patamee ngir àdduna rek nee na bul julli ci ginnaawam sidina cheikh na maa ngi leen di dénk itam ngeen jàng fatiha ba mu mokk fa tabarakallahu waxuma rek patam patamee waaw moom dafa bëgg booy jàng fatiha waxuma la ñàkk indi bismillahi rahmani rahim te xew na ci jamono ñu bari bu ñuy julli allahu akbar fatiha alhamdulillahi rabbil alamin la ñuy tàmbule cheikh na tijaani moom foofu daf fi wuuteeg sax imam malik radiallahu anhu ne waxuma la ñàkk koo indi waaye na nga ko indi muttasilatan bil ham bi alhamdulillah bismillahi rahmani bul ne sax bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nee na jokkale ko bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin na fatiha mokk nga jàng ko aaya arrahmani rahim maliki yawmi ddin ihdina siraata almustaqim ba mu jeex wa takmili tilawatiha fi lsalaati bi tartil ala alwajhi alladi unzilat bi nga jànge ko ni ko yàlla wàcce woon ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama bañ koy yàkkamti fa inna min alsalaati bi manzilati alamudi ci julli mi ngi mel ne kenu ni mu mel ci tabax waaw tànt bi ñu tànt tey kenn yii ko téye bu fi nekkul woon tànt bi du taxaw nee na fatiha noonu la mel ci julli julli ko amul fatiha du julli ida saqata ida saqata al amuudu saqata al baytu fa xaafidu alayha cheikh nee na mi ngi ñuy soññ ñun taalibe ku ci amul ngant di wéradi wala muy ngant loola sharia may nee na bu julli jotee nga dégg allahu akbar bàyyi lépp loo doon def nga dem ca jàkka ja nga joxe fa sa farata loolu la yàlla santaane loolu la rasulullahi santaane Cheikh na Tidiane Chérif itam loolu la santaane ay ay taalibeem ndegam silmaxa mooy ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah man de silma xalaata te aw ma ko ma womat ma bëggoon nga jéggal ma may jullee sama kër sang bi ne ko ndax bu ñu ñu noddee danga ko dégg mu ne ko waaw mu ne ko amoo ngànt deel julli si ci jàkk ci waaw léegi sallallahu alayhi wa sallam na Tidiane Chérif pare na ci julli te nee na mooy ponk bi njëkk ginnaaw boo tuddee ñaari boo tuddee boo tuddee ñaari baatu seede yi ba noppi Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu nee na yow sama taalube bul sàggane weeru koor waaw mënoo àgg ci yàlla mukk ba takaalif yi wàcc la jaamu naa yàlla ba julli wàcc ma dootuma julli waratuma déedéet jaamu naa yàlla ba koor wàcc ma munta nekk jaamu naa yàlla ba azaka wàcc ma te nga am loo war a génne azaka Cheikh na Tidiane ne ne mënul nekk fa tabarakallahu ponki lislaam ay ponk la yoo xam ne benn mënu ci manki kon sidina Cheikh nee na su julli pare nañu fonk weeru koor moom itam am na ay charte nee na nañ ko jàng laaj ko boroom xam-xam yi ba matal ko nee na maa ngi lay moytandikuloo yow sama taalube man Cheikh boo wooree ba ngoon jot ngay dog fexeel ba na doge na lew bul doge mukk alal joo xam ne dafa xaran waaw alali alal joo xam ne bii ci sàngara la bàyyi ko alal joo xam ne ci yàpp mbaam la bàyyi ko alal joo xam ne ka ko doon jël daf doon gàncutu bañ fay ko ko alal yu ni mel ëpp naa dugal ci biir ak alal joo xam ne ci riba la bàyyi ko intérêt boo xam ne danga koy jëlee ci banque ñu la koy jox muy ar riba moo xam ribal fadla la moo xam ribal nasiya la bu mu ci mën a doon Cheikh na Tidiane Chérif nee na sama taalibe na nga ba li ngay dugal ci sa biir na lew sëriñ sëriñ bi Cheikh Maodo mu ne alalu làmbu nag ak ak li nekk ci làmbu waaw ci yaramu neen mag mu ne dung sa yaram nekk ci biti te jullit yaramam awra la nga exposé ko ci biti ak la ca aju la ca aju la ca aju kon alal jooju fan lañ koy dugal fan lañ koy dugal kon ñu bàyyi ñu bàyyi xel alal ci Cheikh na Tidiane Chérif toog na ca zawiyaam bu tedd ba benn waaye ñëw ziyaare ko jox ko ñaar fukk mu teg ci suufu deram beneen waaye ñëw ziyaare ko jox ko junni mu ne ñokket jóg di dem bàyyi fa junni ba jël ñaar fukk yi waa ji ne ko sëriñ bi lu tax nga bàyyi fi sama junni bi te moo ëpp sa ñaar fukk mu ne ko ki ma jox ñaar fukk yàlla tax mu jox ma ko yow junni bi ma ko jox danga ma ko jox ngir ne dangaa sëy te amoo doom te man du ma maye doom yàllaay maye doom moo tax ma bàyyi fi sa junni nee na bi ci topp ñu bàyyi xel azaka moom Cheikh na Tidiane Chérif radiallahu anhu alal yi nga xam ne azaka war na ci ak la ca war a génn ci pourcentage na ko taalibe bi jàng laaj ko ñu xam bu dee alali mbay bu dee alal joo xamante ni bii xaalis la muy keey di fidda ak dahab la ca war nga xam ne deux deux virgule cinq pour cent lay doon la nga am su matee nisaab soo ko séddalee téeméer la ca génn nga multiplier ko ci deux virgule cinq moo lay jox li nga war a génne ci alal soo bëggee sax lu gën a gaaw jëlal la nga am ci xaalis nga diviser ko par 40 la génn mooy la nga war a génnee ci xaalis asaka Seydina Cheikh nee na na ko taalibe bi xam ñu bari nag ci Sénégal dañ naan ñaar téeméer yoo am juróomi dërëm moo ci war waaye bi ima bi euh, borom risaale di wax mi ata dirham jubluwu ci CFA mi ata dirham shar'i la wax bu dee diinaar war nañoo xam lan moo doon ak diinaaru shar'i fi ahdi rasuli sallallahu alayhi wasallam ak ahdu saxaaba yi nga xam ne ñëw nañu ginnaaw bu dee ak dinaaru shar'i poids am tey boo ko doon seet ci gramme ci or pur 24 carats 4 virgule cinq gramme la lay jox soo ko jëlee multiplier ko ci 20 dinars mu jox la 85 grammes ci 24 euh, carats ku ko am ci or azaka war na cee génn ñaari téeméer yooyu dërëm shar'i bu nekk am na ci boroom xam-xam yi wax ne ñetti grammes la soo jëlee 3 grammes nga multiplier ko par 200 mu jox la 600 grammes ci xaalis piiru gal ku ko am azaka war na ci war nga ci génne azaka kon ñaate boo xasee ba am loola nag ci nisaab mu mat ko nag mën ngaa wax ne ñaar téeméer yoo am juróomi dërëm mën na caa génn mais du caa génn ñaar téeméer dërëmu seefaa ñu ciy génne azak matul nisaab léegi nag si waaw sëriñ bi nee na nisaab boobu lu jar di bàyyi xel la waaw di ko laaj waaw coût bi fan la toll soo ko bëggee xam par exemple jëlal quatre-vingt-cinq gramme ci or nga dem ci marché ba laaj vingt-quatre carats benn gramme fan la toll bu fekkente ne par exemple mi ngi toll ci douze mille francs wala quinze mille francs wala vingt mille francs nga jël vingt mille francs nga multiplier ko ci quatre-vingt-cinq grammes la ca génn boo amee lu toll noonu ci xaalis bu dee un million wala muy un million cinq cent ku ko denc ren ba dewen te dara manqué wu ci asaka war na ci léegi kon cheikh na tijaani chérif radiallahu anhu mi ngi dugg ci beneen tomb nee na yéen njaboot gi maa ngi leen di moytandikuloo bàkkaar yi waaw ndax nee na am na ci bàkkaar yoo xam ne boo ko xasee ba def loo ñaanati yàlla yàlla du ko nangu da ngay umu waaw da umu am na ci bakkaar yoo xam ne Cheikh na Tidiane nee na ku ko def doo tàqoog wéradi da ngay wéradi ba ba ngay dugg bàmmeel dootoo wér nee na am na ci bakkaar yoo xam ne ku ko def dootoo am dépense mukk ci ñàkk ngay dee foo toll da ngay walaakaan fu nekk nga di fa tuur sa ndoxum bët moo tax mu ne mooy tondiku leen bakkaar yi nee na kon bàkkaar bu dee géej dama naan géej ga fees na ba duus yëpp yëkkatiku na waaw la maam Cheikh Alhaaji Malick wax tama wajal baxru baxru dambiya fiqati walay si Malick dafa baax waaye boppam taxu koy wax mukk tama wajal baxru baxru dambiya fiqati wa inna ni rabbi xiftul garqa yallaahu boppam taxu koy wax dafay jàngale rek njaboot gee tax muy wax taalibe yee tax muy wax ñii ñëw ginnaawam te defuñu la ñu war a def moo tax Cheikh Alhaaji Malick di wax géeju bàkkaar maam nee na duusu na ba matale nit ñi ku yàlla dimbalewul dëgg-dëgg nga nekk xaritu yàlla doo ca mucc wala nga ànd ak ku yàlla xaritool wala boog yàlla xëcc la ci inaayam ku dul ñii maam cheikh cheikh na tijaani chérif radiallahu anhu nee na def bàkkaar mënu cee mucc fa man ada haula nee na pour ñu génn ci bàkkaar dafay jafe nee na comme que mbir mi def bàkkaar ñàkk koo def yombul ñi ëpp ci nit ñi dañ koy def Cheikh na Tidiane Chérif nee na pour nga mën a mucc ci bàkkaar yooyu yàlla jéggal la maa ngi lay sant yow taalube bi ginnaaw boo defee sa farata ba noppi am na lu ñuy wax mu kaffiraatu dunub am na yoo xam ne dafay effacer ay bàkkaar waaw daf koy dindi yàlla mën na la ko jéggal ba noppi sax soppi la ko muy lu rafet ginnaaw nag Cheikh na Tijaani nag nee na bul jàpp sama tariqa rek ne taalube Cheikh laa lu ma neex def ne Cheikh attan na ko Cheikh nee na même su ko attanee rus naa ko yenu ëllëg ci kanamu yàlla nee na jañanteel ak jéemal defal effort sa kemtalaayal kàttan moytandikul fen moytandikul jëw moytandikul rambaaj moytandikul lekk riba moytandikul dog mbokk moytandikul bakkaar yi waaw moo xam kabair yi la moo xam barul kabair yi la moo xam sagair yi la waaw moytandikul yépp sa kemtalaayal kàttan soo moytandikoo noonu jéem yàlla nattu la wala sax bakkan ñëw wala seytaane ñëw nga tabbi ci bàkkaar nee na kooku moom pour xettili ko dana yomb ndax bàyyi ndikuwul loo wax bu ne yàlla ko dogal moo tax cheikh sidna cheikh ne innal xasanaati yudhibna sayiat am na ci bàkkaar yoo xam ne ci mbaaxu yàlla ak yërëm bu mu yërëm jaam yi soo ko soo tuubee te muy dëgg nee na bàkkaar yooya yu ñaaw yooya am na yu rafet yooy def mu faf la effacer sax yu ñaaw yi moo tax daana wax ne ittaqillaha xaythuma kunt foo toll na nga bàyyi yàlla xel wa atbii sayiata tam tamuha jamono boo defee lu ñaaw muy rëcc rëcc defal lu rafet ca wet ga bu ko defee daf koy effacé te nga jikkoo ak nit ñi jikko ju rafet bul am jikko ju ñagas jikko ju ñagas baaxul gaaw a mer gaaw a gedd gaaw a xeex gaaw a dóor gaaw a saaga gaaw ak ñiñ ëpp naa def wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasan sang bu tedd bu nee na yowmal qiyaama ñi may taw ñu gën maa jege ëllëg moo ñi gën a rafet jikko sallallahu alayhi wa sallam nee na kon waat wa atbii sayiata alxasanata tamxuha jamono bu la boo ne amee rëcc rëcc ba def bàkkaar gaawal nga def lu rafet ca wet ga daf koy effacé wala boog ni ko yonent bi waxe sallallahu alayhi wasallam nee na ni nga xam ne nit ki bu amee benn góom ni muy gaawantee dem faju ko du caagee nag médicament bu mu romb jël ko du caagee nag médecin boo romb tàllal ko sa tànk da ngay seet ko la doy nga dem ci moom mu faj la nee na itam boo demee ba defee bàkkaar demal ci sa borom tabaraka wa taala mooy gafuru rahim te sidina cheikh nee na mooy yàlla boo def ci àdduna bàkkaar boo def am na ñaari am na ñaari mbugal yu lay xaar wa kullu maasiyatin la budda laha min uqubatayn bàkkaar boo def sidina cheikh nee na am na ñaari duba yu lay xaar benn bi fii ci àdduna la bi ci des ëllëg ci kanamu yàlla la bàkkaar bi fii ci àdduna amma du dunyawiyatu fala turfau an il maasiyati illa bi ahadi amrayn nee na bàkkaar bi nga def am ci daani fii am ci daani ëllëg bu dee daanu fii bi soo bëggee yàlla jéggal la ko am na ñaari yëf bu njëkk bi mooy nga fexe ba saxoo di génne sarax ci alal ju lew sadaqatin xaalisa te booy saraxe na nga saraxe te yàlla tax yëkkati perkaal wala looy saraxe wëndeel ko sa bopp juróom-ñaari yoon waaw yëkkati ko jox nit ka koy jox su ci bëtam tegu woon su amee dignité dëgg-dëgg du ko lekk ndax li ngay bañ dong lay bañ li ngay joxe itam na nga ko joxe te yàlla tax booy saraxe bul saraxeel pour tuur bi bul saraxeel pour xàmb yi nga def ci kër gi saraxeel te yàlla tax gàtt bi ngay rendi nag wi ngay rendi na nga ko rendi te yàlla tax qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin alal ji itam na lew alali carte alali riba alal joo sàcc alal joo fëkk yàlla du ko nangu maa ngi koy wax ay mbokk bu yàggul mën a leen waaje dafa sàggan lool njabootam ñëw ne ko sëriñu tariyaax la dama bëgg nga abal ma 500 mu ne ko loo koy doyee mu ne ko dama ko soxla mu jox ko ko waa ji dem jënd ci loterie gagné jël xaalis ba def ko ci mbuus indil ko seriñu tariyaax bi sëriñ bi na ko way foo jëlee lii commencé di wàññi di waññ di wàññi ba mu mat juróomi million mu ne ko xanaa yow ordre nga ko jàpp mu ne ko waaw mu ne ko ordre baax na désordre moo bon xam nga di kooku caaxaankat la ordre ak désordre yépp a yem kenteeg cerseeg xoos ak euh, millionnaire rek lépp a xaram te carte xew na ci Sénégal bis bu nekk ñu yónnee la message ci sa portable di la joueloo te dafa xaram Seydina Muhammad nee na ku wax sa mbokk ne ko kaay ñu jouer carte te fekk foo nga ci jublu bàkkaar boobu war nga génn sarax pour mu def ko fiir waxantuma laa ko jouer carte bi ci tegu mooy nga dellu ci baabu ci buntu yàlla nga tuub toroxlu damm damm lu wàcc ñaan tàllal yàlla sa loxo ne ko jéggal ma yàlla nee na man sama buntu ngi nii qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah yéen ñi taq rëpp ak bakkaar ba defee ne sax léegi man dumóoyu naa leen yàlla nee na ëpp naa def yéen ñu laa soxla taxaw leen ci sama bunt ngeen tuub te charti tuub xam ngeen ko soo ko defee te muy dëgg yàlla mën na laa jéggal bàkkaar ba moo tax sidina cheikh radiallahu anhu nee na kon ñu bàyyi xel ci tuub inna allaha yuhibu tawabin wa yuhibu almutatahirin waaw te yonent bi nee na attaibu min adambi kaman laa damba la ku def bàkkaar tuub te muy dëgg ci yow yàgg ki deful bàkkaar a bokk yam gis ngeen yàlla ni mu baaxee Cheikh na Tidiane Chérif nee na bi ci tegu mooy dumay at duma yi jëm àllaaxira nee na dara mënu koo yëkkati xanaa lu dul yàlla jéggal la yàlla mën na laa jéggal nag ci sabab boo def mën na laa jéggal ci mbaaxam xëy xëy effacer la sa casier judiciaire dara ci bàkkaar dootu ci nekk ñu ne ko waaw Cheikh na Tidiane Chérif ndax sa tariqa am na lu ñuy mukaffiraatu dunub yi nga tudd ndax am na yooñu ci mën a limal tuuti mu ne bi ci njëkk ci li effacé bàkkaar mooy na jaam ñi na taalibe yi baril lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaatu ala nabi rawatena bi bi sigati salaat alfatih cheikh na tijaani chérif radiallahu anhu nee na ni eau de javel di def tache tache ak gàkk-gàkk noonu lay def bàkkaar fa innaha aldaxiratu aluzma wala xisnul maniul ahma képp koo xam ne bii taqoo nga ko sa kemtalaayal kattan salaatu ala nabi booy toog booy jóg foo toll taqoog moom sidina cheikh nee na doy na sëkk pour effacer la say bakkaar ak say tooñ te itam bu yowmal qiyaama ña bi ramm inchaa allahu yàlla dana la ci boole waaye nag nee na itam salaatu ala nabi itam dafa am ay charte il faut nga laab lu bon bon nga laab ci xabas waaye dem ca wanag wa tuur ndox si wóogaloo feruwuloo si wuwuloo tuur ñam raxasuwuloo mënoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ci dëkk dëgg waaw boo laabee ci xaddas nag donte jàppaguloo sax boo ci jullee yàlla bëgg na yonent bi ba nga xam ne mën na la ko mën na ko nangu te mooy nga laab yére yi ngay sol na laab place bi ngay sol na laab sa yaram itam na laab te booy boo koy def itam si sidina cheikh nee na na nga ci jublu jëmmi yàlla ja nga sellal sa yéene waaw ndax ixlaasul amali sellal yéene ci mboolem luy niroog bokkaale ak ndéggatal li sëriñ Pape Malick doon wax léegi fanaane jaamu yàlla ba fajar nga ñëw di bëbbali ngir ñu ne la loo la teree nelaw nga ne dama fanaane jaamu yàlla dama doon naafila dama doon zikr yàlla tax taxatul ngay def wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin kon Cheikh na Tidiane nee na nañ ko sellal booy julli ci yonent bi booy jàng salaatul fatih booy def say lawraat booy julli loo mën a def Cheikh na Tidiane ne na nga ko sellal ngir jëmmi yàlla bu ca sàkku ludul ngërëmal yàlla soo ko defee rek nee na njariñ li dana mat te mboolem xeeti jëf yépp fa tabarakallahu moo ca gën ndax benn yoon boo def ci salaatu ala nabi mi ngi tolloog ñeenti téeméeri ba bataay yoo xam ne nit ki def na ko ci yoonu yàlla benn salaatu ala nabi ak xeex ci yoonu yàlla ni mu màggi te xasuwa bu nekk geer bu nekk dana tollook ñeenti téeméeri aj gu yàlla nangu bu ko defee yàlla dana salaatu boo def allahumma salli boo def yàlla dana ca bind am picc moo xamante ne bii yàlla daf koy bàyyi daf koy may muy sàbbaal ci mboolem làmmiñ ji bu ko defee yool ba nag ñu ngi koy attesté ki nga xam ne daf doon julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla dana bind malaaka ci julli goo julli malaaka moomu yàlla dana ko nëq ci géeju dund bu génnee fëggu yàlla dana bind ci toq bu nekk boo xam ne génn na ci moom malaaka moo xam ne dafay jéggulul kiy julli ci yonent bi ba yowmal qiyaama taxaw sallallahu alayhi wa sallam yonent bi cëram rëy na te yàlla bëgg na ko وسنته والمصطفى من جميع الخلق أتقاها فإن الدين رسول الله فيه لنا حل المشاكل دنياها وأخراها فإن الدين رسول الله فيه لنا حل المشاكل دنياها وأخراها كانت نجائبه تزري بسرعتها سير الصواريق أدناها وأقصاها wa qabla zalika sirrun min shahadati ndax inna shahadata imdaaun li jullaha hazi bi bukratiha هذه بحرتها هذه بحمرتها هذه بوسطاها هذه بظلمتها إذ يسكنون لا أكرم بظلمتها أكرم بسكناها الله أكبر والإسلام ملته والمصطفى من جميل خلق أدقاها فلك الخيار فمؤمن في حسنه أو منكر تلهو به الأصنام لولا النبوة منك والوحي الذي سلكت بنهج سبيله الأقوام فأتى به موسى بألواح صمت فغدا بإسرائيل فيه اللزام وروى به عيسى المسيح وحوله زمر بأوساط الرجال كرام وهدى به أهل البساط محمد لتزول عن غاياته الأوهام فاسأل أجبك بأن نور المصطفى طهرت به الأرواح والأجسام فحضارة ما بعدها من مذهب وكفاية في نفسها وقوام وهداية عمت بغير تفلسف léegi ñu ngi jërëjëf yàlla yàlla fay la ñu ngi tënk rek ci tomb yu gàtt mu kafiraatu dunub yooyu wax Cheikh na Tidiane Chérif ne mooy dindi bakkaar yi wax nañ ne salaatu ala nabi ci la bokk Cheikh na Tidiane yi nee nañu fonk salaatul ummi soo ko defee ajjuma maanaam guddik ajjuma alxemes ci guddi nga jàng ko juróom-ñett fukki yoon dana la jë dana la faral bàkkaaru ñeenti téeméeri at soo ko jàngee ngoonu ajjuma ginnaaw boo jullee tàkkusaan ba noppi dana la effacer bàkkaaru juróom-ñett fukki at nee na bokk na ci mukaffiraatu dunub salaatu tasbiix ku dem ci téere xadiis yi nee na da ko ci fekk nee na bokk na ci mukaffiraatu dunub ngay jàng génnu mujjug xashr képp ku koy jàng yàlla dana la jéggal sa bakkaar yi nga defoon ak yi nga defagul bokk na ci mukaffiraatu dunub subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla walaa quwata ba mu jeex bokk na ci mukaffiratu dunub li ñuy tudde al musabaatul ashr nga di ko def subaak ngoon fa tabarakallahu ku dem ci majmuul awraat da nga ko ci fekk waxtu yu moo xat bokk na ci mukaffiratu dunub ngay faral di jàng xisbu sayfi suba ak ngoon nee na képp ku ko saxo yàlla mën na la jéggal sa ay bàkkaar bokk na ci mukaffiratu dunub duaa u yaa man adhara al jamila wa satara al qabih bu ko defee ñaari tomb rek ñu tëj incha allah bu njëkk bi mooy cheikh na tijaani shérif nee na maa ngi leen di dénk xeeti jëf yi nga xam ne bu ko nit ki defee mën na la génne ci lislaam ba dugal la ci ak kéeféer si dana cheikh nee na maa ngi leen di moytundiku ngeen sori ko ku ko def yàlla mën na laa génne ci diinay lislaam rey la ci ak kéeféer xanaa loolu jar naa xam ñu ne ko loolu lan la bu njëkk bi mooy kathratu idaayatil muslimin koo xam ne foo toll di lor sa ay mbokki jullit ci sa làmmiñ wala ci sa loxo wala ci sa wala ci sa jëf Cheikh na Tidiane yi nee na loolu mën naa dem ba génne la ci lislaam nee na bi ci tegu mooy al iktharu min az-zina min gayri tawbatin mooy yàlla ànd ak jigéen joo takkul ku ko def te doo tuub Cheikh na Tidiane yi nee na loolu mën na laa génne ci diini lislaam bi ci tegu mooy iddiaa ul wilayati bil kadib foo toll di fëgg sa dënn laq wax cëri yi nga am di woote wilaaya tegoo ko fenn lépp ay nari kese la bi ci tegu mooy al intisaabu lil machiqati min gayri idnin waaw toog rek di maye wird muqaddam la sëriñ la kaalawu tabaarakallaahu te amoo ci li ngay def amoo ci benn ndigal cheikh na tijaan yi nee na ku ko taxoo te bàyyi wuloo ko man ngaa dem ba mu génne li ci lislaam te doo ko yëg bi ci tegu itam mooy ne yonent bi nee na te mu wóor la ne da ngay fen li ngay wax du xadiis yonent bi waxu ko waaw da bëgg ñu fonk la wala nga bëgg a duufal say mbir ba tax nga sosol yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku ko bàyyiwul te tuubaloo mën na laa génne ci lislaam bi ci tegu juróom bi moo di nuur ci jëw ak foo toll di tudd say nawle di wax seeni ayib seeni sikk foo toll di toxal ay xabaar di yàq ay diggante di tas ak mbokk Cheikh na Tidiane yi nee na mën naa génne nit ki ci diine l'islam yàlla nañ ci yàlla boore mbusal nee na fa hadihi umurun yuqtau li saahibiha annahu yamuutu kaafira Cheikh na Tidiane yi nee na lii ku ko bàyyiwul maa ngi lay dogul man cheikh ne daga dee ci ak kéeféer walaw walaw amila maa amil ak loo mën a jëf ci lu baax wa illa an yatuub xanaa lu dul nga tuub boo tuubul ba dee ci nag nee na génn nga ci lislaam amma boo ca saxee nuur ca bañ caa génn cheikh na cheikh nee na ci ci ci kéeféer ngay dee wal iyaadu billah bi ci tegu te moom la ñuy tëjee incha allahu ndax waxtu wi sori na te kalima bi mënu fee jeex cheikh na tijaani lettre bi sax xaajul waaye cheikh na tijaani nee na yow sama taalube bi jël salaatul fatihi bëgg mu amal la njariñ bëgg bu ëllëgee ma man laa peledeel ci kanamu yàlla maa ngi lay dénk man cheikh nangal fóot sa xol laabal ko génne ci mbañeel génne ci coxar waaw génne ci kañaan maa ngi déglu léegi Cheikh xaaji malik Malick si Maodo di ko wax ca kër ga ne maa ngi leen mooy di moytandikuloo mer ndax mer su ëppee dafay indi ak coxar coxar su ëppee dafay indi ak kañaan kañaan su ëppee sëriñ bi borom du yéem a def dara ci lu bon mën naa dog tànk mën naa tibbu tànk mën naa dog reen mën naa rey nit moo tax si dina cheikh ne maa ngi leen di dënk bi salaamati sadri wa taharati al qalb fa inna man taxallaka bi dalika laa yuflix nee na képp koo xam ne sa xol coxara ngi ci wala iñaan wala gaaw a mer wala tëru nit nee na doo am ndam mukk maa ngi leen di dënk yéen jaam ñi itam yéen sama mbokk yéen samay taalube ak jullit yépp bil bu'di an suui danni billahi wa bi ibadihi lmuminin foo toll di ñaaw njort rafetoo njort ci sa bopp rafetoo njort ci sa digganteeg sa borom rafetoo njort ci say mbokki jullit ak say dëkkandoo cheikh na euh, yonente bi sallallahu alayhi nee na ñaari jëkkoo ngi ni yoo xam ne ñaari maanaam benn dara féetewu ko kaw bu njëkk bi mooy gëm yàlla ak foo toll di jariñ jaamu yàlla yi ñaari jikkoo ngi ni yoo xam ne jikko gënu leen a bon bi ci njëkk mooy ashirku billah bokkaale ak yàlla wal idraaru bi ibaadihi ak lor jaamu yàlla yi kon mbokk yi fa tabarakallahu risaala bi jeexul wasiya bi jeexul waaye loolu la waxtu yu maye hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa waaw barakallahu fikum jamian yal leen yàlla fay yal na yàlla yéwénal seen mbir àdduna ak àlaxira yàlla def nu ñëpp taalibi Cheikh Tidiane yi ñu dund ci dee ci dekk ci waaw mu defee ziar kay ñëw Tiwaawan toog ci kanamu Seydil Hadji Malick toog ci kanamu Serigne Babacar Sy toog ci kanamu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Seydil Hadji Mansour bu ñu fa jógee war nañu am yóbbal ci recommandation yi nga xam ni sunu sëriñ bàyyi na ko fi pour mu yombal ëllëg li ñu bëgg ci moom itam bul ni rek cheikh nangam salaatul fatiha nangam lu ma neex def bu boobaa yow buntu alkande dugg nga ko lii ñu fi wax nag ku teylu daa ci am loo mën a xalaate bu ëllëgee ah su fekkee bëgg ngaa def lu baax nga mën ko def ñu di leen ñaax rek ñuy góor góorlu euh, góor gi daf daan wax ni pëkk nelaw yi bari na waaye pëkk-pëkk yi bari na jamono bi jamono bu jaxasoolo jamono bu metti la jamono bu tiitloo ñépp la moo taxoon ñu boole woon ci programme bi li ñu ñaanoon sëriñ bi te mooy ñu ñaan ëllëg ci altine ci tisbaar jàkk yëpp wàcce kaamil def ay dog ci listigfaar génne ay sarax ñu dajale ko jox ko ñu ñàkk ñi ndax yàlla gën a protéger suñu réew ndax itam réew mi yu yu doy waare ngi fi xew ci xeeti nattu ci xeeti mm, ay masaib yuy xew yoo xam ni sax miinuñu ko woon kon dañu war a delluwaat ci suñu borom delloo ci tuub delloo ci defaat lu baax ñaan ko njëggal ñaan ko sutura mu defal nu ko ñëpp bàyyi ci xel bu ngeen demee yéen imam yi yéen président fédération yi yéen président daïra yi su ngeen julee tisbaar na ngeen fa jàng benn kaamil sellal njàngin yu rek benn kaamil bu sell mën naa defar lépp moo gën fukk yu baaxul su ko defee ngeen def ko génn loo nit ñi ay sarax ñi mënul jàng wala yeewuñu waaye mën nañoo génne liibaru ceeb walla kilo ceeb ñu dajale ko yëpp yóbbu ko ci jàkk ja teg ko ci loxo ilimaan ilimaan it seet ña néew doole te ajowoo ko mu séddale leen ko ñu jublu ci nag yal na yàlla musal réew mi ci xew-xew yi yi nga xam ni ñu ngi wëndeelu ah mën a itam suñuy aajo yëpp mu mën ko fajal ci sababu ñaan yooyu ak taxawaay boobu ci wàllu lislaam loolu moom lañu joxe tey fii ci programme bi ngeen yóbbaale ko ñu xam ne boog fii wax nañu fi dara ngay ñëw ba dem te waxoo dara li kilifa yi wax ci seen wàllu àdduna ak fi ngeen ko war a jaar eh, la loolu doy na buñ ci boolee lii nag day gën a baax rek ngeen ko ci boolee day gën a baax te gis naa ni am na ñu mu intéresé parce que maa ngi doon xool nit ñaa ngi noté te loolu mooy li am solo lépp lu ñu wax mu intéressé la noté ko soo demee nga révisé waat ko xalaat yi ndax tariqa Cheikh Ahmed Tijani tariqa kaadar la bu kaadar la waaw du tariqa caaxaan nii rek déedéet kaadar la ci tariqa kaadar yi la bokk-bokk borom sonn na ba ba taxawal ko ci façon bi mu ko taxawalee jox ko ñi mu ko jox ñu di ko joxalante bu mu yegg si ci ñu baax ñi yaakaar loole nag toujours dafa war a continuer ba boo ne taaliba cheikh laa rek nga niru ko ci sa jëfin ci sa waxin ci sa comportement yépp nga niru taaliba cheikh bu ko defee nag kon euh, dañu ñëwoon rek di feddali suñu ziar suñu wóllëre te yeesal wóllëre fi lañ ko fekk ci alquran ak ci sunna gis nañu aaya yi ci yàlla wàcce ak xadis yi ci yonent bi wax ci yeesul wëllëre waxtuma la ak wëllërenteeg nitu yàlla nag boo xam ni tuwaawu la propagande la yaa toog ba sa xol mu doy la ca nga ñëw nag ñu ko maa ngi wëllëranteeg yow ci lii yàlla santaane bu boobaa da ngay engagé sa bopp mooy ne bu ngeen fi jógee ngeen bàyyante xel bàyyi tariqa bi xel bàyyi xadara bii xel mooy xadara Seydi El Hadji Malick ngeen gën a taxaw eh, lu ko defee yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem mën na ci dëgg defar suñu lépp zahiran wa batinan yan na ko yàlla def ñu ngi ziar mbokku taalibe yëpp ak fu ñu mën jóge góor ak jigéen ndaw ak mag surtout la jeunesse Tidiane di Sénégal ñu ngi leen di jox mention spéciale tabarkallah góor lañu lool ci tariqa bi te ñu ngi koy jël-jël bu baax loolu nag ni ngeen continuer ndax nun kat dañ leen di gunge ba ci kanam rek bu dem jotee ñu dem bàyyi leen fi yenn yéex kay waaye nag day ami su ko defee na kon ngeen bàyyante xel ci lii ñu tëralal nga xam ne mooy di suñu trésor suñu trésor bi nga xam ni euh, li ñu bëgg ci lu baax rek maa nga ca mu jële ko ci xam-xamam bu rëy ba jële ko ci alquran jële ko ci hadis donnale ko ñi ko donnale ba mu yegsi ci Cheikh El Hadj Malick mu am benn taalibeem bu ñëw wan ko ni ko dema seeti woon benn sëriñ benn sëriñ mu ni ko loo ko fa doon wuuti mun ko damay doon seet ndax mi ngi ci dëggam déet munu ko waaw boo ko fekkoon ci dëgg nooy def dëgg gi ma la jox danga koy sànni dem ca dëggam ga te jox naa la dëgg ba noppi wala danga koy bàyyeek dëggam nga te muy dëgg mu di ko xool mu ni ko ku sedd gëmmu te séddu ngeen mu ne ko yàlla li mu wax ci alquran yépp la ma ca xam wax naa leen ku ngeen dégg jëfe naa ku gis yonent bi li wax ci xadis la ma ca xam wax naa leen ku ngeen dégg jëfe naa ku ngeen gis cheikh cheikh na tijaani ci tariqam li mu ci wax la ma ca dégg yëpp wax naa leen ko ngeen dégg jëfe naa ku ngeen gis ba su ma dellu woon ëllëg ni leen du nii na ngeen xam ni cheytaama cheytaane moo man ci diggante bi waaye nii la kooku kon wàccoon ak ay taalibeem sànku leen naxu leen topp leen rek lim leen wax pour mën a am li ngeen bëgg seen àdduna ak seen alaxira yal na ko yàlla defal tabaarakallahu su ko defee nag kon mu ngi guddi waaye lépp baax na ndax sëñ Mansour si radiallahu anhu dama waxoon ni ma ñaag boo xam ni boo ko ñaagee ren bala nga koy ci déwén soo koy ñaag doo fo doo fo mooy daje bi daje diina la daje tariqa la daje passif la génnu génnul ñett yooyu su ko defee nag kon ñu bàyyante xel rek te toujours ñuy bàyyi xel xadar bi xadar bi moomu nu ko yéen ko moom ndax bu ñu deman tey ba ku sant si desatu fi yéen ngeen continuer doxal li fi nekk kon seen xadar la seen xadar la bu ko defee nag kon ziar bi yal nañ ko fekke wat diwen te yàlla na déwan dàq ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, ah bëgg nañu daal mbëgg nag mbëgg rekk la mën a doon bëgg nañu ci suñu gan ñu tedd ñii nu am wala sax du ñu wax suñuy gan ndax ñoo ñooma yem ci dëkk bi waaye boog suñu mbokk yu baax yii di suñuy rakk te toujours ñu won ni ñu li ñu bokk ñu ngi ciy bàyyi xel te loolu lu am solo la tabarakallahu kon nag ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu ñu demee ñu jottalal ñu sëriñ bi suñu ziar ñun ñëpp ñun waa Tiwaawan ñun waa ziar bi yëpp jotal leen ngeen jotal ko suñu ziar ak suñu beesal suñu buum kóllëre jëm ci Cheikh Ahmed Tijani turandoom ñu ngi koy ñaanal wér ñu ngi koy ñaanal sakk ak sutura yan na ko ko yàlla defal defal nu ko nu ñi taalibe yi tabarakallahu bég nañu sant nañu yàlla eh, ngeen góorgóorlu nag bu mu fi jógee rek ñu jéem a appliquer liñ fi dégg ci jàkk yi ci jaamu yàlla yi niñ koy defee mu sel ndax itam bu gisee ñu tànn ko da ngay dem ci jàkk yi léeg-léeg nga gis koo xam ni na muy jëfe xam nga ni du noonu waaye nag doog ko ñemee wax waaw ndax dafa am benn góor gu ma nettal ni dafa dem ko toog ci buntu jumaa ja ne benn waay ñëw tiim ci basang yi te kiloot la sol ne julli tisbaar mag ñi nag xam nga yooyu ñoom duñ ko mën a muñ ne ma woo ko mu ñëw mun ko ah, sa julli gi xaw naa doy waar mun ma ah. mun ko danga tiim ci basang yi te basang kenn du ci tiim li nga sol itam dafa sàngul say awra ndax kiloot nga sol nee mu ni ma yow tam day xamoo faratay wax man ni ko moo doom luy faratay wax munu da ngay nekk ba ñu laaj la te ki laaj nga doy ko man doyoo ma laajuma la kon ba ma nettale loolu nag laaj di commencé di moytu ku ma gis nga def erreur duma leen waaw yaa ngi def erreur ngay bàyyi rek te wax na dëgg nag mag mu la laajul doyoo ko matul gàgganti lu gàgganti nga defee nag kon tabarakallahu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ndax itam tariqa bi dafa am yoon am nu mu war a tëdde am nu mu war a doxe léegi nag li xew gis ngeen ko ku mu neex nga beru woote li la neex wax lu la neex dem sa yoon du ñun ñun kay nii ñuy mel mel nañ ko ba noppi ki ngi si ka nga nañu waaye ndaw yi ñëw te xamuñu buñ leen wanee lu dul dëgg ñoom duñ ci xamante duñ koo xamante bu ko defee nag loolu moo tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax gën ci yaraat xale yi gën leen ci orienté bu baax a baax a baax te nafaraat kàddu yi nga xam ni Seydil Hadji bind na ko pour su rek sowe na nun ñëpp ak kàddu yi nga xam ni Cheikh Umarul Fuutiyu bind na ko ak ñimel na ñoom ba ci maami kii toog di alxaaji abdullahi ñas wala baayam di alxaaji mor ñas lu ne bind nañ ko ñoom itam ci tariqa bi yooyu nag seet ko seetantal ko jariñoo ko sëg tijaan wér waaye tijaan goo fare ci mbedd rek di kooka kooko defee nu ko neexe te loo defe ni nit ñi ñemewuñ ko ñeme nañ ko dama toog sama kër Cees benn waay ñëw ànd ak ay taalibeem sept pagero ña nga ca ak moom ma recevoir leen nuyoo fekk xamoon naa ko jàng na ci daara suma daara ah. muy présenté mi ni mi ñi samay taalibe la ñu kii ingénieur de xawma lan kii professeur de lycée la kii xawma lan présenté ma ñëpp bon man ko loolu baax na ñu nuyoo toog tuuti mun ma dama la soxla woon ci biir ma ànd ak moom ñu dugg ci biir wallahi alazim mu ni ma coow li coow li nag jëlaguma werd mu ni ma moom lay jël si tey ma jox ko ba noppi ma ni ko waaw ñi ngi ko jox nag mu ni ah ñooñ de yaa xam nooy def ak ñoom te dem na ba siiw ñu doon ko tudd turam fu nekk ci rajo yi nga di ko dégg ma ko ah dafa mel na nag boroom yëf yi moom nanguwul loolu ma ko matt baam nanguwul jël tarixam foye ko noonu di ci tooñ nit ñi waaye lu ca mujj lu ca mujj dama dem ziar rawdu bi bay yéeg ndeysaan suñ mbokk mu baax ma dàpp ma oustaz Seynu Jéen ni ma ah euh, camionnette bee de diw moo ca nekk ma ne ko ci lan mu ne ma dafa faatu te daf leen waxoon ni su faatoo nañ ko indi ci yow daal di wàññeeku ñëw muuri ko muy moom ma ni wàcce leen ko ñu wàcc ko man def leen ci morgue bi ñu def ci ma ni sang leen ñu sang sang mu jullee ñu yóbbu leen suudu ñi mu àndal ñeent lañu ana pajero yàgg foofu ngay mujj foofu ngay mujj am ci ko xam ne comme ni ko Seydi Hadji gi waxee sama xarit la woon waaye jékki-jékki maa ngi fàttaliku ñu indi ko mu xaw a turubale mu ngi waxtu rek ca Njaasaan Sëñ kër Si radiyallahu anhu génn mu ngi sol caay ju bulo ak chemise bu bulo mu ngi waxtu rek Sëñ Babacar Si dóor ko ci jën ni ko eh, noppil mu daal ni kamaj na làmp mu daal di ñëw toog ci fauteuil bi nii toujours dana am ñenn mag duma jubook ñoom ndax bari na néew yu tëdd ca ba betuwaar ñoo leen fa tëral ndax lañ leen di jox àttanuñ ko daldi nit te yàlla dafa laaj ñeent ñeent yi su amul ñeent yi benn dana ci am dafa laaj xam ndigal laab nga laab ragal yàlla mu ni ñeent yi bu manqué ñeenti yi benn dañ ci am feebar bu dootul wér wala ñàkk gu dootul dañ wala yey sagar wala teel a dem bàmmeel tabarakallahu gërëm jigéen ñi ñëpp ngi gërëm ba ci agent de sécurité yi ñëw di ñu assurer suñu sécurité ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm kilifa yi nga xam ni teew nañu fi di ay kilifa aada ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla fu ñu bëgg yegg yàlla nañu fa yegg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa